war nañoo mën a waxtaanee réew mi ci opposition douce bi mi nga xam ak opposition radicale bi ba lépp loo xam ne muy jafe-jafe ginnaaw ba président Macky Sall waxee na du doon candidat ñu xol nuñ koy saafaraa mën a dem ci ay élection yu libre inclusive transparente ñu bari nag parce que man su may wax il faut ñu dégloo ma xel sant yàlla tamit mënul weesu boo demee ba nekk ci réew nekk fa ndaw boo ne patt ñu ne Pape Alé gëj naa wax bu waxee amaana ñenn ñi nga xam ne vue lañ bëgg wëlbatiku wax ci lu garaaw pour niñ mën ci cliquer ngir dundee vue am ñenn ñoo xam ne amuñu xam-xamu dégg man fa may waxee ñuy commentaire sant yàlla mënul weesu loolu parce que bari na fi ñoo xam ne mën nañoo wax ba xotteeku te kenn du leen fulaal kenn du leen faale niveau de raisonnement bi may taxaw dama koy sukkandiku ci kaddu kii nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall moo toog ba muy lancé dialogue bi mu ne mi ngi sant di gërëm ñëpp ñu ñëw ci dialogue bi yamu ci mu yokku ci ne ku gedd sa yaaya aye ko wala feme bu yekke may la xogn lolou lañuy wax delu ci wat ñu teunk dialog ba lañ fay teunk jox ko ko mu def discours altiné rafet lu am yépp ci dialogue bi yamu ci nak mu ne teewul ba léegi mi ngi tàllal loxoom lépp ngir njariñu senegaal kuy tàllal loxo amaana la nga jot doyu la walla bu la doyee tamit bëggoon nga mu gën ñun foofu la ñuy waxee tey kun naa féqul ànd ak moom ñépp xel mun te jàpp ñu ne dañuy def waxtaan dialogue ci ëllëgu réew mi dialogue bu sincère nag laa wax te dinaa ci dellu si waat ñu ne ay nit ñoo xam ne dañ leen tuumaal luubalub xaalis te man yàgg naa leen wax na man gëwuma ko ndax défendre naa ko fii défendre naa xalifa sàll ba dugg la ca daj ak la ma yàqal sama liggéey man xam ko mais le ma gëmoon la moi victime d'injustice Karim wad bañ doxale timit créé dama ne len créé bi politique mo ci laxasu du reddition des comptes kon nga xam awma problème bobu man damay waxi demb moy samay waxu tay dialogue bu nekkee ne ëllëgu réew mi njariñu Sénégal lañu ñu jiital ci lépp dafa war a sincère ñu def ay compromis dynamique pour l'intérêt supérieur du Sénégal et de notre démocratie amaana dañuy wax ne suñu démocratie jéego yu séq yépp dox ko mu nekk ay acquis démocratique ci dialogue lañ ko amee dem leen ngeen seetaan la ma waxoon waxaat ko neewaan noonu mënuñoo bañ dialogue ndax processus électoral bi fokk ñu waxtaanee ko parenage bi ñëpp xam na ne jaaduwul woon wax nañ état bu Sénégal mu dindi ko ci dialogue la fichier électoral bi pour opposition bi man koo xool saytu ko du daa fa ko yor faaw ñu xool nuñ koy waxtaanee ba société civile bi mën cee def audit comme na mu daan demee te lu bees loolu ci Abdou juuf ba ci Abdoulaye Wade du lu bees homme politique bu ma ci mës a waxtaan ak naa leen leen dialogue Macky Sall xaw ma ban xeetu dialogue la mais dialogue dina am ci processus électoral bi. Sénégal yàgg naa may dialogue keebaa mbay Jayite ay nit yoon ñu fonkoon leen jox leen cër ñoom ñoo doon présider dialogue yooyu ma wëlbatiku na ni ma mën a comprendre ñoom xalifa Sall war a mën a dem ci dialogue bi ndaxte bëgg nañ lijjanti seen candidature ndax mën a comprendre Ousmane Sonko nu di dem kun séquestré noy dialogué eh? kun japp ce plus de 400 militants tej ko ci bir kasso bi noy eh? kun jël li nga xamne modi justice diko door sa kaw noy dialogué eh? damay laccé rek xam nga il faut que baña nafiq di waxante deug tey ji ñu bëggoon Macky Sall am taxawaayu jaam yépp ñoo bëgg a yor seen làmmiñ di ratatat di wax te Macky Sall bu leen toppoon ca la mu bëggoon ca la ngeen bëggoon ñoom du doon gor gi ngeen di wax tey ji jaam lay doon bu leen toppoon yéen ci wutal deuxième quinquennat kon yéen da ngeen war a noppi parce que Sénégal ràññeele nañ léegi ñu fi gore ñi gëm yàlla ñi wax dëgg ñi nekkul naafiq Macky Sall weer na leen kon patt ngeen war a def ma dellu siwaat waat Kéba Mbaye def na fi dialogue ba mu demee jox dossier bi Abdou Diouf daf na ko virgule dama ko ci changé jayte na ko noonu dialogue yooyu xam nga bon c'est vrai que nag ay xale lañ dañu yàgg topp politique bi dialogue yooyu ñoo ñu may isoloir et sax xam nga ne Sénégal daanañ voté sans isoloir maanaam fa ngay làqatu di dugal fu la neex daana am fii moo ñu may isoloir dialogue yooyu xanaa loolu jéego bu baax la ci démocratie moo ñu may encre indélébile dialogue yooyu dialogue yoy mo may opposition bi ñu am sañ-sañ di contrôler le fichier électoral xana ak i démocrate ki noonu dialogue yoy mo ñu may onel bala muy ku nek Sénat dialogue yooyu mo ñu may ñu am personne neutre général Lamine Cissé ci Abdou Diouf la tambalé onel la amoon dialogue yooyu. moo ñu may tey jii li ñuy nganda ngandalu yépp ci démocratie ci jaloog yooyu la amee muy ay avancé yu wér yu leer nañ yoo xam ne mëntuñ ci dellu ci ginnaaw xanaa jaloog am na njariñ ci processus électoral bi encre indélébile isoloir audit fichier électoral ah onel mu mujj doon Sénat loolu yëpp fa la personne bu neutre général Lamine première alternance 2000 mais xam nga ñàkk xam-xam ak ñàkk xam li ñuy wax man fi may waxee dafa sori parce que damay wax pour le Sénégal ñu am ay acquis yoo xam ne am di ko am ay alternance ak lu bare bari abdul Mazid Ndiaye na société civile du benn yon du ñaari yon pour audit fichier électoral bi kon ci ay dialogue lañu ñu arracher arraché acquis démocratique yoyu, Abdoulaye Wade di ci jambar fëkk teug yàgg wax bu ñuy bind taarixu réew mi ci wàllu démocratie Ablaye Wade ay chapitre chapitre lañ ko war a jagleel parce que lii yëpp ay combat la yu mëne ñoom ay Abdoulaye Bathily ñu ngi may dégg ah non tonton ak ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Landing Savané bii léegi nag nañ dellu si waat ndànk ñu xool dialogue yu ñu Macky Sall proposé boobu ba léegi lan lañ ci am comme acquis democratique dialogue bu mu njëkkoon a def lu mu ci jublu woon jàmm la ñuy woote pour libérer Karim Wade dañoo pare dialogue bi rek mu grâce yëpp Karim Karim Wade exilé ko exilé ko am na walla amul ba mu ci toppee beneen jaloog bi lan la ci jublu woon parrainage pour éliminer ay candidats mooy bi mu def balaa deux mille dix-neuf imposer ñu parrainage.

voté ko sans débat lu toll noonu wara changer xar kanamu démocratie Sénégal nga voté ko sans débat lu ci djublu won pexem lan la won éliminer ay candidats ñu dem ci ba autant le ministre de l'intérieur que le premier ministre bala ñuy conseil constitutionnel di joxe liste sax mu ne juróomi candidats ay am ñom ñu wax ñu ne juróomi candidat moy am te boobu déposé guñ sax li nga xamne ne dossier candidature yi kon xam nga moom xam na li mu def beneen dialogue bu mu fi indi woon lan la woon coowul pétrole tous les dossiers mu doon scandale yu baree bari mu ne nañ ko waxtaanee xam ne fan la mujjee ñu suul waxi coowul pétrole yi beneen dialogue bi lan la woon ba ñu génnee ci deux mille dix-neuf Muna ne bàyyi na njuuj njaaj ba ko soo am war di ne na ko il faut nga gracier xalifa sall mu ne ma xaaral dossier am jeex boobu la toog ne bàyyi na njaaj waa léegi dialogue yooyu yëpp am ban aki démocratique lañ ci am sénégalais yëpp d' accord ne am na aki démocratique boo xam ne dootul dañati ci réew ci dialogue yu initié yépp xam nga dama bëgg ñuy waxtaan ci dëgg rek te yàlla tax ñu jiital réew mi bañ a parparloo dialogue bii mu mujj def parrainage lañ soppi tuuti ci bi mais li ko taxone jog deug deug deug deug deug deug mom moko ci defone mom mo jël code électoral bi changer article yi ndax dafa amone majorité écrasante à l'Assemblée nationale mu changer code électoral yi pour xagn Karim Wade mu nok candidat 2019 xañaale ko Khalifa Ababakar Sall kon moom moo ko ci defoon mënoon na bañ a def sax dialogue bu ko neexoon ñu def toilettage code électoral bi rek mais faw ñu wut luñ ko mbubboo mooy dialogue bi lu ko taxoon a jóg du lenn lu dul permettre ñaari leader politique ñu bokkaat dans le jeu politique par ricochet lu tubaab yi di wax mu dugal ndëgg sërëx boo xam ne lu ko tax a jóg moo di fexé bu Ousmane Sonko du bokk mais bu ko jëloon mom légui toutes les personnes qui ont participé au dialogue politique ils sont complices de cela xam nga wax bi dajul neex mais ñoo tok ci dialogue bi ñu d'accord loolu tënk ko amana kon ñom d'accord nañ ci bëgg-bëggu Macky Sall kon Macky Sall du taxaw rek ne man naa ko éliminer mais ñepp la ci andak ñu àndandoo pour jéem a xool nu ñuy faagaagale wax na waxuma faagaagal de nan la ñuy fexee ba ñu ne Ousmane Sonko nañ ko galgal du bokk mais am na beneen piège bu nekk ci biir xanaa grâce ak yooyu mën na dindi pen grâce peine bi lay dindi mais xaalis bi ñu la jiiñ dang koy fay lolo yoon dama ne dañu waxanti deug rek juriste yep bu nekul deug nañ ma leralal grâce peine de lay dindi parce que boy déposer dossier ci conseil constitutionnel da nga joxe quitus fiscal quitus fiscal duñ bëgg tabax réew mi ci kaw deug quitus fiscal grace day dindi sa peine bi ñu la tëj dindi ko carrément waaw xanaa ñooñu lan leen jiiñ timit ci wàllu xaalis ak yooyu war na ñoo xam nu muy deme bëgg ni am ci am ay leeral juriste yi nañ posé débat bi maa ngi dégg Souleymane Ndéné Ndiaye mu ne xel mënta nangu nga ne da ngay amnistier gracier ñaari leader politique yu ñu toppee wàllu xaalis parce que ñoom ñoo ñu wax loolu ba paré né da ngay galgal Ousmane Sonko du bokk xamuñu lan moy suñu combat né ñepp bok sénégalais tan ku len neex mais Macky Sall amul droit na man bokuma ba paré mais dina galgal ñen ñu bëgg bok bokk dafa yiwadi sax dama ne loolu dafa yiwadi motax boy du dialogue la jarutoon waxtaan bu sori Macky si boppam mënoon na ñëw ne bon écoute je demande à l'Assemblée nationale parce que la preuve mi ngi nii saisir l'Assemblée nationale on n'avait même pas besoin de perdre une seconde de réunion mais il fallait soxla loolu pour lan ëllëg ak si biir ku nekk nar wi liñ ci moom nga jël ko parce que l'histoire retiendra

ba pare ñu ne dañuy bëgg a focaliser wu sur les questions de développement barki Dembo Ndiaye Guinée Bissau bii te ñu ngi nganda ngandalu def nañu élection législative ba pare c'est l'opposition qui est devenue majoritaire on va imposer à Umbalo la cohabitation da fa dégg dara déggoo fa dara Cap-Vert ñaata alternance la def def fa cohabitation da fa dégg dara mais parce que dañuy jub leader politique yi jub ñu bëgg seen réew di ko waxtaanee ci yoon ak ci kaw dëgg suñu demee ñun suñu réew Sénégal ñu di bakku di feug Le bulletin unique nous sommes d'accord Côte d'Ivoire qui a fait plus de 10 ans de guerre bulletin unique la voté au Sénégal wut bulletin unique dañuy jël ay milliards di ko ci défar ay bulletins yu baré. bari bu élection yu passé nga fekk ko ci maire di milliards ñuy ci abri sans abri provisoire xaj fenen ak fenen hôpitaux yi amul médicament ñu ne d'accord d'accorduñ ci bulletin unique te pourtant ku ci nekk opposition d'accord ci bulletin unique bo nekkee pouvoir nga prôné le contraire fan mo fay honnêteté ak sincérité am fan la fa honnêteté ak sincérité am bo nekkee ci opposition yaay prône bulletin unique pour démé ci réunion bu yalla défé nga tu changes de position des convictions à géométrie variable personne neutre Macky 2011 2012 da ko taxaw gor ministre des élections téwul mu TFM ne Wade nous prend pour des idiots limi def yëpp xam ko parce que c'est le ministère de l'intérieur qui gère l'administration territoriale qui est l'épine dorsale de l'organisation des élections kon waxuñu lolu téwul Wade jël kenn wad dafa tok na bu nekké ne gëm len ma jël kenn def ko chargé des élections ministre chargé des élections ñu dem ci élection mom mi doon wax lolu mu gañe mom ba mu falo bañ ko ñëkké wax loolu mbay njaay la yóbbu ministère de l'intérieur tek fa kan après abdoulaye daouda diallo catastrophique élection législative yu catastrophique yi amoon yoo xam ne matériel électoral mënu génn école police yegg kastoor gii ma doon voté ba midi catastrophique xale yi jotuñu seen euh, carte vote mooy élection yu gën a catastrophique Aly Ngouille Ndiaye ñëw après Antoine peut tu peux tout lui reprocher mais quand même man damay seede ne élection yu mujj organiser élection yi def na ci kemtelu kattanam ba mu jaar ci yoon mos naa ko wax sax na ko je le connais pas on a aucune relation aucune xam je suis la personne qu'il déteste le plus mais bu defee dara gis nañ ne organiser nañ en une année mu metti trop des locales et des législatives ce sont les les élections les plus difficiles quand même ma au moins mën man reconnaître ko mérite bobu mais yëpp yan defoon moom 2017 la xoma ci ak c'était catastrophique Macky Sall na du jox personne neutre d'accorduñ ci te mom da ko doon kaas casse, dans l'opposition ngëm-ngëm moo jafe président chef de parti c'est normal parce que nous, duñ ne sommes pas président de parti c'est des chefs c'est des chefs xam nga un chef Macky Sall c'est un chef c'est pas un président c'est un chef chef dans chef là quoi xam nga chef moom amul sax ay discuter waxam il frappe voilà la preuve dans toutes les qui on lui donne carte blanche bu nekkoon ne gis nga ni ñuy comporté woo seen parti politique yi mooy déteindre wu sax bu ñu faloo xam nga aujourd'hui man sama yónnewul ci APR ah sama yónnewul ci Benno Bokk Yaakaar sincèrement parler bëgguma ci sax commentaire une affaire mais c'est juste pour vous donner un exemple aujourd'hui la logique voudrait que APR bu ñu bëggee am un candidat boo xam ne coow am ñu def ay primaire ku bëgg nekk candidat nekk candidat ñu voter comme dans toutes les démocraties majeur ku bëgg samp sa 100% de sa ndënd mun na nga comme dans toutes les démocraties nga en France gauche droite bi non carte blanche La carte blanche ba pare ñi de diri di ci bir Benno Bokk yaakar dañuy top ci ginnaw koku parce que ñom mom sañu ñu wax candidat ndax buñu de candidat motax je beaucoup le courage de une bu AFP ci lu son courage la pris son courage à deux mains candidat la bir AFP dégg naa ne ma kii euh, kii dàq Mustapha Niass mais au moins il assume mais ñeneen ñi mom Macky Sall bu indi woon benn toto tap paté sax ñu top ci ginnaawam parce que ku sañ ta bañ saña a nangu te ku ñuy diri do taamu sa ndong fu muy dal. léegi nag ñu def seen dialogue dilok boobu ñu def parce que xamul tax ñu def ko parce que ñoom ñëpp di fëgg dënd na candidat lañ leer na leen te Macky xam na loolu daf leen koy <laughs> daf leen koy mbalagee sax bu ndem wéet ci kiw da na leen su ma leen ak booy bi <laughs> def naa midi <laughs> carte gi leer de booy bi benn voyage la leen di def boobu xam na ko sax mom bu nekkon candidat ah sonko jakarlo mom sax du gagner mom Macky Sall xam ko ils sont tous conscients d'une chose parce que lolu moi je pense évolution naturelle la xam ko bu baax a baax a ba Macky Sall xam ko ña nekkoon ca dialogue bi leer na len bir na len ne fuñu tollu ni ci réewum Sénégal gagné fi noonu noonu élection Ousmane Sonko dina jafé trop ña dañ wax ñëpp muy local législatif dañu botu won maki da leni kaño lol na len suma len bay ak boy bi belu voyage la def midi carte gi leer léegi nak ñom niñ ci dialogue bi def nañ li def ñi ngi jema a la wax damay préciser bu baax dañuy jéem li ñu def di jéem empêcher candidature Ousmane Sonko la def dañuy jéem jaam ak paxam nag yàlla ak dogalam waaye ñoom ñëpp bu yàlla dogalee waxuma ñoom bu yàlla dogalee te yàlla borom bët bu rëy bi mu ngi seetaan te dina àtte dëgg bu yàlla dogalee ñu jéem a Sonko ñoom ñëpp ñuy suggi suggi dem seeti ko. bu ñu tolloo foofu nag bu ñu tolloo foofu man dinaa wax ak sénégalais dinaa wax ak usmaan Sonko ku nekk li nga def sa trajectoire assumer ko assumer ko am ngor fulla dënk sa bopp sénégalais bu laajte ndibal fenn dënk sa bopp sénégalais yi ñu dem ñu xool buñ ci tolloo wax jooju jotagul te la lay lay ay ree daf may jàpp su ma déggee ñuy wax loolu non Sonko problème la am ak justice bi soyons sérieux quoi fii kon kan moo fi dof problème la am ak justice bi wadd tëju fi nit six mois mu génn nekk kandidaa nekk challenger am am na fi wala amu fi wadd ñaata yoon la ko Abdou tëj mu génn nekk candidat amul benn juge wala justice bu prononcé ne comme condamné naa la pen bi waroo doon candidat lan moo xew Macky sàll moo jël code électoral bi laxas ko ci ci bëgg-bëggam ba mu bëggee éliminer Karim ak Khalifa Sall tey jii ba mu leen bëggee réabilité moo ko dindiwaat kon caay-caay gi ci am kay du justice caay-caay gi ci am mooy day wax waa justice condamné leen ma lii pour mu mën a tënku ci article LLLL yi nekk ci code électoral bi loolu Macky moo ko ci def Maki moko ci def fan ngay xamé né si ciobare bopam la ko ci def tay jii bu bëggo ba mu Karim bokk ak euh, Khalifa Sall laayan ko bu fassé na ko dindi mais da ci laxasaat benen encore pour gal Ousmane Sonko mais jam ak pexem yalla ak dogalam la preuve les questions seraient à l'Assemblée nationale musoo dégg weddi gi génn yëpp ñu ne way condamné nañ ko temps du juge bi juge bi prononcé wu amul yàgg naa leen wax ne il faut qu'on dissocie les dossiers juridiques et les questions de candidature bu nekkoon ne ña nekkoon ca dialogue ba non honnête maa ngi dégg sama grand frère di wax ne les hommes politiques ont beaucoup de ont trahi Ousmane Sonko bu nekkee dañoo honnête djup bañ dañ na waroon wax premier point Macky Sall nañ dissocier ay dossiers juridiques yeeg yooyu nañ def ay élections inclusive légui li ci gëna graw sax moy ay jambour ñi nek ñi nga xamné bokku ñu dara ak Ousmane Sonko ku melni Souleymane Ndéné Ndiaye ñeneen ak ñeneen ñi nga xamné am nañ ci liberté de ton liberté de parole ñom ñoy wax né na ñëpp bokk parce que bu ñu mën a diw ak diw mu bokk war nañu bàyyi diw mu bokk suñ démé bay wax lolu frère c'est pas totalement faux c'est pourquoi je dis que chacun assume sa position jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'en février 2024 parce que l'aspiration du peuple sénégalais est de rupture qualitative. active ñuy jiite ay valeur bàyyi xool sa intérêt strictement perso xool sa carrière déet nga ne réew mi sénégalais yi loolu lañ bëgg de dañu bëgg léegi booy yi ñëpp a xam politique si yu bari yi fi am si justice bi moo moo tax ñëpp a xam yoon dañuy liiri xam kenn dafatu fi bu nekkee nag politique yu yàgg yooyu ngeen foog booy yi léegi duñ leen sax déglu Nous sommes ci beneen mbir moo xam dafa am solo ñu war ko waxtaanee xam nga sonko dafa interview ci france 24 même pas deux jours nous avons ci 1 200 000 vues même pas deux jours ngeen ngeen ba 1 200 000 vues ma xam ci interview boobu lu bari ay dëgg yu mu wax sax bon bref c'est pas important d'y revenir alors <laughs> Sonko déclaré fa ne buñ ñu bëggee def ay élection présidentielle bëgg empêcher sama candidature risque de chaos rek naa féq yi jóg oui da ngeen ni mu wax il faut appeler à des émeutes gis Marwan bu Jeune Afrique du tweet en toute honnêteté est-ce que vous êtes intéressé une seule une seule seconde si les conditions de séquestration d'Ousmane Sonko sont légales ou pas mais on connaît Jeune Afrique on connaît Jeune Afrique Marwan tu sais très bien comment tu as fait pour avoir l'interview de Ousmane Sonko après la présidentielle de 2019 parce que xam ko ak la fa wax muy tweet xam nga yàlla bax nañu mais yu bari dañuy baye sutura duñ ci duñu duñu duñu duñu duñu dugg ci yenn niveau yi dafa am yoo xam ne c'est privé ñëpp yuuxu way il va appeler à des émeutes ku nekk di choqué choqué lu laa la wax de naa féq yi di choqué choqué oui d'abord interview France 24 Bobo. battre record en 24 heures de 1 million 100 ba ci def 1 million 200 yi xaw <laughs> mo metti le gouvernement bi ci deugantane parce que gis na France 24 fi nek ni mi ngi suis ngi euh, bu baakha opposition sénégalaise parce que ñom dañu fogon na ñoo ko ok ñom mom les institutions parce que joxé nañ ay contrat pétrole fi joxé nañ li ñi ngi marché des yi entreprise française ñi ngi leen jox xam nga dem na ba interview dans le monde Je j'ai trouvé inélégant au Élysée envoyé un conseiller auprès de mon opposant mais Macky Sall da nga fàtte ne yow Oumba la yow sa ay oto ko jël yóbbul ko campagne mu fekk ma man Guinée Bissau ca campagne ba deux semaines militaires ya fa nekkoon ñoo bokkoon hôtel yow la nga def Guinée Bissau ba Bissau Guinée yi mere ci sénégalais bu baax a baax ba ministre de l'intérieur bi woo sénégalais yi ne leen génne leen ci suñu élection yow yaa ko def fii exposer les sénégalais qui vivent là-bas jàppale umbalo mbaaloo bu baax a baax ay oto DK di dugg foofu nga def ko ci fii la fekk France amul liberté consulter ku ko neex moo tax nga doon fayantoog Macron di recevoir Marine Le Pen <laughs> bay jël journaliste bu nekk ci école euh, jarbaatu Marine Le Pen bobu mu ñuy gëm doo ne man nga def deuxième le pauvre Robert Bourgi nga ne ki ne représente plus rien un banque bu nekk kii ñëw fi di ñu lo hein ah, mais yow ba nga démé ba peser sous peser xam nga né troisième candidature bi va risquer de plonger le pays dans le chaos te Djaroukou. porte de sortie bu rafet ngay wër fi mu nekk nii li fi am ci ñawte bari na li fi am ci yàqu-yàqu bari na li fi rot ci bakkan bari na moo ne ba nga waxee ne doo candidat sénégalais xaw nañu apprécié wu tuuti léegi leneen li lay sénégalais di wax dañ la la d'accord doo candidat mais gars yi fëgg dënd di wax ëffal leen ñoom ñëpp ñu seetaan sénégalais yi nag tànn ku leen neex ne kii lañ bëgg mu jiite suñu réew ma dellu waat ci Sonko parce que dañ ne mu def interview ñoom ñëpp dof interview bi en réalité c'est plus de douze minutes foofu laa ca yem am na parti yoo xam ne xam nañ lan lañ lan lañ ci wax alors loolu mo déranger état bi ñu génn ay communiqué tendancieux mais couper leen signal France 24 ñu xol <laughs> couper leen ko naafeq wax wax chaque choqué lu nak ñom le fait que ñu séquestrer Sonko de manière illégale mom ñaari soxnam ay domam ñaari mënu mënuñoo génn ay doomam mënunoo jàngi l'école alhamdulilah ba école tëjee période de plus de un mois teguñu ko ci benn base bu légal maanaam ñu sur le plan juridique lii mooy document bi may état bi mu transformer cité kër góor gi caserne cité kër góor gi caserne mix en police et gendarmerie léegi fi caserne la boo fi jaaree goudi sax da nga leen gis ñuy lam di nelaw comme caserne militaire yi choqué wu leen déggoo ci ONU wax déggoo ci Union européenne wax déggoo ci Union africaine wax déggoo ci CDAO wax personne ne dénonce cette situation unique qui viole allègrement les droits de quelqu'un. Et c'est un État qui le fait. Nous avons dit un banditisme d'État. Qu'est-ce que tu Cité Kër Gorgui devient, devient maintenant caserne. Qu'est-ce que tu même fii ci réew mi amul benn kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan ak kilifa boo mënta jël bu yëkkati kàddoom ne lii ñaaw na lii jaaduwul mais bettuma xam nga lu tax tabaski gi ci xutba yi lu toll ci fanweeri bakkan rot ñu ñuy wax na wéy xale yi waru sàcc xale yoo ne na oto nit moo koy jënd nit bu deewee dootul mën a jënd oto kër nit a koy tabax bu nit deewee dootu ko mën a tabax waa bakkan ñu rey waruñ ci wax wala diine nee na garaawul bakkan bu rot garaawul man moom ma dégloo xutba yu bëri dégguma ñu wax ci bakkan yi ma ne leen kon ni duñ tudd sax li nga xamné ñing koy def man Sonko te jaadul parce que makki nak du ñëpp ko ñëmé dé légui nak Sonko nekk ci biir kërëm il est obligé de se battre ngeen na ko non waroo wax mais il a le droit d'appeler tous les Sénégalais épris de justice à manifester pour que état bi dindi barricade yi def këram amna ci droit bu ñeneen nekkoon feneen di ko waxal wala di ko defal amaana mën na noppi tey bu gisoon ne am na kilifa yu jóg sol seen dal dem seeti Macky Sall na ko eh def nii nag ëpp na. tegoo ko fen jaaduwul lu tax jaaduwul ismaila major may wax di ho oh, major major moom defe naa remaniement ministériel bii di ñëw defe naa du ko fi fekk bon major major ban ko laajee def na risque de trouble à l'ordre public <laughs> xam nga loolu vraiment yow mi koy wax sax est-ce que yaa ngi xool bëti la nit ñi di xoolee muy benn ñaareel bi ñu ne ko lu tax jàppoo ko mun a décision de justice génnul léegi décision de justice bi génn na bu ma defee live la lendemain ngeen génn décision de justice bi di wujjee di defante te bu ñu kenn wax ne wooy enregistré guñ ko Mame Mbaye si trois jours ngeen def loolu procès Mame Mbaye pression juge bi mu décision de justice bi à enregistré ko procureur def appel Mame Mbaye def appel ñu tek ci même pas une semaine ngeen jugé mbir mi amna fi décision de justice bi génn na gis ngeen ko qui peut le plus peut le moins Fi yéen a ko def caserne caserne cité kër caserne kër ça gi sax lañ ko wara pas cité caserne kër la logique voudrait que comme décision bi génn na <laughs> dam len japp ko dam len ngeen japp Ousmane Sonko parce que lolu ngeen ñu waxone on ne peut pas l'arrêter parce qu'on n'a pas encore la décision de justice maintenant vous avez la décision de justice Macky Sall néna ah lan la ko waxe sax Euh... la ko fan fan am ne fu pas ko bindoon sax comme nu ko nu mu ko celui qui doit être arrêté sera arrêté ok ça c'est facile de le dire dans une interview maintenant vous avez la décision de justice mais xam ngeen li nek ci bir xam ngeen lu nek ci bir ba ngeen ne tekk def ko nii donc il peut communiquer en étant chez lui xam nga li xew il faut être homme Il faut avoir quelque chose entre les jambes il faut être homme assumé boo leen jàppee Sonko procès ba ngeen def yëpp ça tombe à l'eau xam ngeen ko da ngeen di defaat beneen procès qui va explosif en terme de révélation parce que loolooy vrai procès ba muy benn ñaareel ba yéen a ko teg seen bopp yéen ko taxaw fii gis ko xam fu mu dëkk ba séquestré ko ba def lépp jugé ko par contumace koo jugé par contumace mooy koo gisul tegoo ko bët mu daw mais que je sache Sonko ba léegi dawul mi ngi fii Sénégal mënul génn fenn contrôle judiciaire la nekk ni ni man moom sax moom a gën a yàggale man février deux mille vingt quatre incha allah <laughs> ma àmbale ko may ko cadeau Macky mu yóbbaale ko voilà ñu wuti beneen passeport nekkaat ci leneen. donc yéen kay comme mën ngeen indi trois blindés côté collège Sacré-Cœur rond-point bi nekk wetu Auchan sax ngeen teg fa ay gendarme cinq ou six voitures biir cité kër gor gi ngeen def ay barrières def plus de trois blindés ah mobiliser fa plus de 100 personnes pour séquestrer le lieu... il faut assumer un homme aussi c'est le courage d'assumer soit ce qui est normal ou des bêtises en attendant Son coup se défend en attendant Son cours se défend il a le droit ñen décapiter par partem mu wax ak jeune patriote yi ne leen manifester len parce que liñ ma tek jaadul amna droit bobu parce que yéen xam ngeen ne li ngeen tax jaad gis nga police yi ngeen nek fi yeb dañuy waxtaan ak ñom de ñom dañoo dem ba xamal la lañ lay wax vraiment waji c'est un homme quoi ñom loolu lañ lay wax ci Sonko da lay wax ne non c'est un homme quoi. parce que liñ teg nii Ousmane Sonko leader yi yëpp di tëb di dal kuñ ci tegoon genn wàll gi nga sukk raam jébbal euh, jébbalu ci Macky sàll jébbalu ci Marème Faye Sall liñ ko def nii mais yéen ñi ngeen indi fii vous vous rendez même pas compte que jeunes yi ngeen di indi fi ñu fi dañoo dem ba am estime ak considération parce que xam nga homme de tenue day bëgg guerrier dañoo dem ba am estime ak considération ci moom ne quoi qu'on puisse dire c'est un homme góor quoi am na jom am na fulla fayda boo ko téléphone il est zen rigole il te dit que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que gënuma laa nekk en sécurité parce que moi qu'est-ce que je fais dans la maison lu dul lire sport jaamu yalla ah hein?

taxaw di wax yenn wax yi jëmale ko woy dialogue beeg yooyu oui Sonko est obligé de se défendre et il va se défendre jusqu'au bout ba li ko yàlla may bind ko ci moom nekk ci moom mi kuy fekkee 2024 mille yàlla rek a ko xam kon ma leen sant di gërëm balaa loolu day gis ñaan li ma bind ci page Facebook bi par rapport ak nit bi il faut ñu dalal seen xel interview bi man lay neex ma génne ko jox naa ko ña ma ko war a jox à travers le monde man lay neex ma génne ko neexuma parce que interview fi deux semaines maa ngi maa ngi ak moom lu ma ko bëggoon génne génne ko te xam ngeen ma yéen yegg ngeen ci man.

Euh, dama leen di wan ne je suis un citoyen modèle citoyen modèle mooy li ngeen ma imposer dama koy respecter vendredi dem naa bu demee muy parquet muy juge di leen xool ne bañ ma mettre sous contrôle judiciaire ba léegi le premier vendredi de chaque mois damay dem signer dama dem ba su may tooñ greffier bi noo ko dama julli si àjjuma damay dem signer mais le passé dama dem ci couloir bi boo ko longé huitième cabinet ba deux cabinet ba deux ba deuxième la fa nekk ci ay mag.

dem nga ba peser ba sous-peser génn ci nekkatuma candidat ah xale yi ñu tëj ci biir kaso yi yërëmal seeni yaay li nga jooyloo ci mag li nga feebarloo ci mag li nga jooyloo ci ay màgget président loolu bu la jigéen dina ma jaaxal trop ah yàlla rek a xam mais yërmande war nga koo def Casamance Sonko mu nga tëj fii séquestré ko dama ciy sànni kàddu rek parce que yëpp bind naa ko ci tweet bi fi mu nekk nii démb ci TikTok dafa am lu ma waxoon ma ne leen da ngeen fàtte ne mango yeeg ñiy def commerce mango yooyu yëpp ñu ngi koy jëlee Casamance li ci ëpp fi mu nekk ci port ba mango yaa nga fa di nëb te ñoo xam ne ay commerçant lañ. ci bato bi lañ ko doon dugal di ko indi président yërëmal ñooñu yërëmal ñooñu parce que dañuy am loo xam ne dañ ma koy wax man des fois may sikki sàkk ñu ne président ak sa nekkul nit ku soxor ma ne ko ah man da jaaxal na ma mais bato bi ngeen téye ñun dal la ko da ne loo wax rek ñu ne ñaan la ko ñaan lañ la ko ci njekk voilà man bokkuma ci ñaan nañ leen ko njëkk pour lan pour l'intérêt de ces personnes la man du ma commerçant du ma voilà pour ñooñu dañ ma bind ay lettre du ma ñu mais ñu waaye ñooñu léegi président da nga leen ñu lor noonu nii rek ci parce que dañ leen wax ay affaire yoo xam ne dara amu ci ana kab leen jaata seen rebelle bi dara amu ci c'est faux archi faux fii réew mi ñu yor seen làmmiñ ñëpp di wax xam nañ ne. kawo buy am ci réew mi ci nguur gi lay jóge kawo bi fi mujj am milice yi ngeen génne jox leen ay ngànnaay ñoo indi kawo bi ñoo indi kawo bi ñan ñoo ko def des éléments yoo xam ne ñu ngi sa biir nguur kon su ma ne man man la neex ma ne non des fois il ne pas de jeter il ne pas jeter de l'huile sur le feu mais nag xam nga man nag du ma ngaaka agressé ma lu tax nga jot ci interview bi ku ko def la lendemain jàppal ne da koy def sans pareil ku ko yëg ña ko yëg loolu mooy sama mot d'ordre na arme yi ñëwee ñoo ñoo recruter ñan ñoo leen recruter la la leen santoon lépp loolu xam nga man menacé wu ma nekkuma ci ay menaces yéen xam ngeen ne loolu sama style mais nag. je suis responsable, très responsable et républicain, très républicain. Voilà. Kon, sante ñep, di gërëm ñep, di leen dig dajé inshallah ci benen waxtaan ngeen wéy di abonné ci Dakar Matin mooy tamit euh, de me suivre mes pages Twitter mes pages Facebook pour rek ñu mëna top topp réew mi bu baax a baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf.